bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa shafiicina wa mawlana muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ixwati alkiram asxaab almaali saadat alulama ayuha saada assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi tëdd yi ñuy déglu ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaar di leen balu àq te di leen baal àq yàlla boole jéggal Sud FM seen rajo 98 point 5 kaddu gi bàyyi ko fi ci Ndakaaru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 di ñaan yal na ko yàlla gërëm lépp lu nu ci wax te juum ko yal na ko yàlla jéggal waaye noo ngi ñaanit yal na nu yàlla may ñu mën a roy sunu maam jooju <clears throat> borom der bu ñuul boobu di bilaal ibnu rabaax di sag di tiitar boo xam ne nii sunu borom subhaanahu moo nu ko yénke waral mu mel ne tey jii it incha allah dañu fa yéen waa dalaat jeneen waaye muy salmaanul farisi moom it di borom der bu ñuul di doxandéem waaye bu dee ca Makka mi dina jaam la waaye nag gor la ndax xeeñtu mbaax moo ko fa indi woon xeemtu mbaax moo ko indi foofu ci Madinatu Munawwara ba yàlla yenkeewal ko wan ko sang bi alayhi salaatu wasalaam ba léegi ñu ngi daal beneen borom der bu ñuul mu wane na ñun waa Afrique ñun nit ñi ñuul ñi sunu der bu ñuul yii bu mu tax ñu complexé sunu karaw yu gàtt yii bu mu tax ñu complexé yàlla mi maye may nanu te yàlla li mu gërëm diine ju mu gërëm ju nekk lu ca nit ku xonq def rekk nit ku ñuul def na ko ca certes xëy na fii ci afrig bi ñu gën a miin Afrique yonent yónni yàlla yónni yonent waaye yonent yi muy yónni ci Asie yónni leen partout ci àdduna bi gëm nañu leen te yàlla may nañu ay nit ñoo xamante ne nii buñ dul yonent it ñu ngi dox mission yonent kon yàlla jaana wàcc na ci ñun sidna Muusa alayhi salaam am na ñu bari ñu nit ku ñuul la woon waaye raciste ak soxor ak xatal gi leen nat ci boroomi xam-xam di doxe am na ci ñoo xamante ne ba ñu déggee baat boobu sax dañu am luñ ci bind cheikh Mutawalli Sahraani la mu te wax dafa ni yàlla du yónni nit ku ñuul ndax ñuul naqsu la naqsul ma maanaam ku ñuul matul mënul mat mënul def lu mat te yàlla ku mu yoon da ngay mat euh, kon Moussa euh, du woon nit ku ñuul xoolal ji wax naka la ko boroom xam-xam mën a waxe ngay nitu diine ak nit diine yaatale ak nit diine xamee nii amul frontière ci teraange sunu borom yi nga àttana bind lii nit ñi di ko jàng kon da lay xamal ne rek diina ji nekk mu diina lislaam diina ju civilisé la diina la joo xam ne kenn sosu ci dara kenn yokk ci lenn kenn wàññiwu ci dara lépp a mat bu doon nit nit a ciy wax kon danañ yàq mbelengaan lu mel ni ñu ñuul daañu leen wax daañu leen mu musiba mënut mën a wax fenn ndax wax jii ki ko wax borom xam-xam waaye boo xoolee Seyyidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi ko gënoon a fréquenté ci njëlbeenug lislaam ñi ci ëpp ay doom borom der yu ñuul lañu ay mbokki boppam ñoo ko mujj wuy si daanaka genn wàll gi yëpp bi ñuy wuy si ba fekk na lislaam am doole borom der yu ñuul yi taxaw ko taxaw bu rafet ca ba muy metti ca ba ñuy nëbbatu ca ba ñu ñemewul a génn borom der yu ñuul yi ñoo taxaw joxe seen bakkan ba lislaam am doole yàlla may ko jéebéer bu baax muy maareetul xibti doon soxnaam waaye di nit ku ñuul di africaine dëkk Égypte kooku itam yàlla dogal na dogaloon na mu am doom doom joo xamante ni doom ji góor la muy Ibrahim alayhi salaam moom rek la yonent bi sallallahu alayhi ci doom ju góor ju dund lu jege ñaari at moom la yàlla jëyoon jëloon ca bisub tam xarit ca bisub tabaski ba te mu koy miseer te sunu borom wàcce alquran saaru lëm bismillahi rahmaani rahim inna aataynaaka alkawfar fa solli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa abtar loolu borom nit ku ñuul borom dër bu ñuul moo taxoon saaroo wàcc alquran it li muy yaatu yaatu yaatu yaatu doo ci dégg turu aboubacar sadiq fa alanan fang babacar hey babacar ak lu mu baax baax baax baax turam lañ ko codé jëfam rek la ñuy tudd turu Omar fàcc eh yow Omar wala nga eh yow Ousmane wala eh Aliou am te amul ci alquran wenn tur lay alquran musul tudd ginnaaw sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te borom borom bu ñuul la muy Zeydun fa lama qada Zeydun minha wataran zawajnaakaha ila axiri kon Zeydun turam nee na fang. ci te borom der bu ñuul la man na mu fekke ne koor gi jeexul suñu daanee lee salmaan xëy na danañ ñëw ci waaye dañu bëgg incha allah dañu fas yéene ñëw ci salmaan alfarisi salmaan it li ëpp ci li nuy waxtaane moom nu ngi ko jële ci abdullah ibnu abbas radiallahu taala anhu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa amoon na fóorey xeet wi muy Abdullah ibnu Abbas lii ñuy wax li ci ëpp ci moom lañ ko jëlee lenn liñ jële ko ci xilaasu zahab fi sirati xayril arab lenn liñ jële ko ci kutubu tafasir yi bëree bëri lenn li ñu jële ko ci sunu mag ñi jëkk waxtaane histoire yi dégluwaat leen ba mën a tegaat suñuy wax ci yoon loolu tam ñu ngi leen ci gërëm bu baax a baax a baax a baax di ci gërëm suñu mbokk suñu soppe Ahmed Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw di gërëm Hadj Moustapha Guèye maxtar Seck góor gi maxtar Dieng ñooñu nga xam ñoo nekkoon RTS te lu nañu wax ci diine li ëpp ci ñun li ñuy wax léeg ci ñoom lañuy ñuy tibbee moo te léeg la xam léeg-léeg ci oustaz Alioune Sall mii la koy xamee ci lañ koy jëlee ak imaam Omar Seck suñu mag ñu baax ñi ak ñoom Mbàkke si la ñii ci la ci la ñuy jànge kon sa taalibe wax alhamdulilah an abdullahi ibnu abbas radiallahu taala anhu qaal qaala salmaan kuntu rajulan min asbahaan wa kaana abi dahqaan wa kuntu min ahabi ibaadi nnaar ilayhi ijtahadtu fi lmajuusi xatta kuntu qaatina annaar allati nuuqiduha wala natrukuha taxbu wa kaana li abi day arsalani ilayha yowman fa xarajtu wa marartu bi kaniisin linnasaara fa samictuhum yusalluuna wa daxaltu alayhim li anzura maa yasnaun fa ajabani maa raaytu min salaatihim wa qultu haza xayrun min diinina wa baqaytu indahum xata gaaba shams jël nañ ci Abdullah ibn Abbas radiallahu taala anhu mu ni Salman mooma ni kon Salman moo Salman ci boppam moo nettali abdullah ibnu abbas ustuwaaram ak ay jaar-jaaram moo tax abdullah ibnu abbas nee na salmaan neena ma kuntu rajulan min asbahaan man day génn góor laa gu bokk ci asbahaan famille bu ñuy wax asbahaan wala giir gu ñuy wax asbahaan nee wa kaana abi dahqaan sama baay mu ngi tuddoon dahqaan wa kuntu min ahabbi ibaadi naar ilay ma bokkoon ci ñi gënoon sawar ci jaamu safara sama baay doonoon kilifa ci ñi daan taal safara taal matt safara wu fay mukk ma bokkoon ci ñi ko daan contrôler bokkoon ci ñi nga xam ñu daan xiir nit ñi waaye safara mbokk yi lu tax ñu bari di ko jaamu parce que perse yi wala ba rome yi ñi ëpp ci ñoom dañ daan jaamu safara ndax safara ay jeexitam boo ko day xool da xam ni lii ay jeexitam mën naa nax nit booy xool jamonoy sedd soxla nga safara bala ngaa lekk soxla safara safara doon lu doom aadama di jëfandikoo muy lu bari njëriñ donte bari nay lor waaye muy lu bari njëriñ booy xool ci wàllu e, miin wala ngay xool d'abord ci li aju ci pétrole ak gaz ak yenn xeeti mbell yépp safara dafa am solo nit soxla ko lool mu an yàgg ànd ak nit nag tey jariñ nit moo tax nit ñi ba ñu réeree genn wàll gi ndox lañuy jaamu genn wàll gi safara am ñu daan jaamu jant bi ñii weer wi ñii biddéew yi ñii mujj bu samp ay gën ak i kuur ñii di jéem a jaay aar samp dara moomale ko seen bopp ni ñii ñoonu moom ci riir googu ci la nit ñu nekkoon ci jooju jamono salmaan nee na safara wi ñu doon jaamu daawuloon fay nee na ijtahadtu fil majuusi hatta kuntu na naar nee ma góor góorlu nag def ci sama jom gëm safara wi ba bokk ci ñu ko daan contrôlé ba du fay du giim du saxaar dëkkee tàkk guddeeg bëccëg du fay nee ba benn bis nag nee na sama bàyyi daxpaan mel nii am na lu mu réer li nee na mu yónni ma pour ma dem wëral ko ko ma dem di ko wër waa maratu bi kanisin lin nasaara may wër ba yàgg ma yem ci benn bâtiment walla benn église boo xam ne a gën a nuru nee na booba fekk na nasaraan yi maanaam ñu doon jaamu ci diina yonent Yàlla Isaa Jésus nee na ñooñu ñoo fa nekkoon di jaamu seen boroom di julli ci seen boroom def seeni prière nee na ma dégg leen ñuy julli nee wax ji neex lool ànd lool nee na ma daay ñëw ma itam daay dugg ci biir daxatu alayhim li anzur ma yasnaun ma dugg ngir dañ kumpa xool ba xam ñii lu ñuy defar lan la ci lu ñu nekk nee ci loolu laa nekk waaye nee na bi ma ñëwee fa ajaba nii ma raaytu min salaatihim nee na ma yéemu lool gën a yéemu gën waaru ci ñoom ngir seen prière ga seen julli yenuy julli ma yéemu ci trop trop trop trop ma taxaw di seetaan taxaw si bàyyi ma ni ah haza xayrun min diini naa ñii de seen diine ji moo gën sunu diine ji man de sama bàyyi li ñuy jaamu ñii daal ñoom la sama xol gën a nangu seen njaamu gi daal mën laa man daal ñi laa gën a bëgg ñi daal li ñuy def daal ñeme naa ko moom nee na maa ngi koy wax sama xel nee na ma nekk fa dematuma nag fàtte naa lan sama baay yónni seeteetuma dara nee ma ne fa yang nee na toog leen xool nekk fa ak ñoom nekk fa ak ñoom ba jant bi so nee na demuma téléphone la ma sama baay yónni woon nee fa laa zahabtu ila dayati abi wa rajatu ilay hatta baasa fi isri nee na dematuma fi ma sama baay yónni seetatuma lu ma doon seetloo yéemu naa ci diina ji ñuy jaamu ndax neex gu mu neex ak harmonie bi ni mu mel nee na ma far toog nag nee na xam naa sama papa dem naa dema dema dem ba xam ni gisuma dégguma xamu ci lu ma nekk nee na mu dooru nag topp sama tànk yi nag yónneelu yónni ay ndaw ñu topp ma ñu topp ma topp ma ba fekk ma fi ma toog nee na bi ñu paree nee na ma laaj kanisa bi waaw waa église bi nee na ma laaj leen waaw yéen seen diine jii fii la soqi ko wala da ko jéggi wala nu mu demee nii ñu ne ko lu la jaaxal mu leen dama gis man sama baay li muy jaamu ak ñun sunu famille sunu giir bokk la yéen ñi ngeen di jaamoo ñun safara la ñuy jaamu ni na la yi ni ko bokk nu ñun diine bi nuy jaamu diine bu bàyyi ko ci asamaan la téere yi bàyyi ko ci asamaan la yonent Yàlla Isaa moo ko moo ko fi bàyyi ñu koy jëf ñu koy jëfandikoo diine ji nag fi kii Salman leen waaw siège social bi fan la nee ñu ni ma siri ca Cham nee na foofu la siège social ba nekk fa la église mag ba nekk fa la évêque yaag mag ñi nga ni ñoo ŋànk euh, diine ji euh, ñooñu foofu lañ nekk nee ma ni cel nee bi ma dellu see ma nettali sama baay daxqaan ni ko li ma gis raaytu qawman yusalluuna ala fa ajibtu li anna diinahum xayrun min diinina papa billaay tey laa yéemu li ma gis tey musuma koo gis musuma koo dégg romb benn ngandam église nit ñaa nga fees del taxaw di julli ci seen bopp di julli seen boroom nee fa ma yéemu ndax seen diina jooju daal papa daa mel ne moo gën suñu diina ji suñu diina ji daal diina safara daal moom moom xaw ma daal nu ko nit mën a amee waaye jee diine daal moom daa mel ni daal moom mooy diine daal ndekete booba yi nettali ndekete booba sama bàyyi mere na ma sama bàyyi nga ma jéppi ci wax ji ma koy doon wax non seulement déw ma ci yóbbanteem ba waaye maa ngi bëgg a xeeb diineem dama nga commencé gis boppam ñu ne xeeb mere na ma ba digle nañu ma nañu ma ceene ni nañu ma yeew ñu yeew ma daldi may jéng ni ma ne dootoo génn ndax danga nga sopp yamuloo fi nga war a yam ñu yun la ngay dem seet ay église ba ñëw di xeeb sa diinay bàyyi ak di xeeb sa diinay maam nanga ñam mbugal ba bu ëllëgee di nga xam sa bopp waaye mbokk yi Salman nee na fexe naa fexe ba yónnee ca nasraan ya ndax wut naa ku ma complot ci kër gi ndax kër goo gis dam ku la bëgg même mu lu ñu la mere mere mere dina am sa doom bàyyi wala sa benn mbokk boo xam ne ni moom dina la yërëm nee ma yónne ca nasaraan ya ni leen nag yëgal yëg yëg leen ni li ma sama baay def kat yéen a tax mu def ma ko ngir sopp leen ak gëm ci li ngeen nekk nee na man leen nag bis ni ki tey gëm naa Jésus Christa gëm naa diineem nangu naa ne yàllaa ko yónni noonu isan isa qadima aleykumul rakbu an tuxbiru nii qabla awdatihim li arxala maahum ila shaam mu ni leen nag comme néewoon ma diine ji siège social bi ma nga fële ca siri shaam karawaan bi nga xamante ni ñooy jóge màkka wala ci dëkk yu mag yi di dem saam ngir diine jooju bu ñu woññikoo ko na ngeen ma ko yëgal ba ma xam ko su ko defee ma mën a yoot ndànk fexe nu ma génn sama kër baay gii dem toppi sama borom ci yoon wu légal moo gën ma nekk fii di jaamu ay safara ki ndox ak di jaamu lu ma mënta xam su ma demee foofu xanaa dinaa rëcc wala boog dinaa mucc ci sama baay li ma ni ñaan daal mooy fu ngeen déggee ni fu ngeen déggee rek ni caravane bi ma ngay wàññeeku na ngeen ma ko yëgal bu ko defee ma dem ànd ak ñoom danañu toog tuuti ay fan yu néew nee waa église bi yónnee ma yónnee ma ndaw wax ma ko ñu am na benn caravane buy dem saam a ah, soo mënee ñëw ànd ak ñoom moom dina la gën a jàppandal li nga gën a bëgg ñee fa xatamtul xadiida wan xalabtu maahum nee na ma daal di dagg cëng ya fexe ba dindi ko ndànk daal di dox ndànk wéy dem ànd ñoom jëm saam ngir rawale ci sama diine ak sellal sama topp yàlla nee na lii moo ma taxoon génn sama kër baay gàddaay complètement ngir mën a mën a mucc am gain de cause nee bi ma yeggee saam hunaaka saaltu an aalimihim fa qiila lii asqaf saahibul kaniis ma laajte bi ma yëggee laajte kan mooy fóore yi ñi géeju ci xam-xam ci yoonu Jésus Christ ñi ci am xam-xam bu leer ñi mokkal injiil te déggu ko ñooñu laa soxla ñan ñooy ñi ko xam fii nee na ñu ni ma am na kaang mu mag mu fi nekk bu ñuy wax asqaf moom moo jiite kanisa bi moo jiite église bi nee na fa ataytuhu ma daal di dem seeti ko bi ma yeggee nuyonteeg moom fa axbartuhu xabar yi ma wax ko samay mbir li ma tax a jóg fi ma jaar li ma sama baay def ak yenn pexe laa def ba ñëw fii ngir yàlla rekk bëgg yàlla ak bëgg xam sama boroom nu ma koy toppe nee na fa aqamtu axdumuhu wa usalli fa kaana haasa asqaf rajulun suu fi diinihi iskaana ijmau sadaqaat min annaas laa yuaddiuhaa walakin kaana yaknisuhu li nafsi nee di ma yëgee ma sax fa asqaf daal di may dalal ma dëkk ca église ba topp ko muy sama kilifa may surgaam di ko jàppale di ko dimbali waaye di yokk sama xam-xam ci diine christianisme di liggéey ci église bi di root ndaa yi di defaraat bunt yi lu këru yàlla gi bëgg rekk ma def ko aw sallimaa na ñoom di julli di prière ci ñoom waaye nag li ma fa nekk lépp nag gis naa ne ku nu asqaf ki nga xam ne mooy jiite église bi moom daal nit ku doy waar la seetlu naa ni daal ak maandu dese na ko ku kuy ñaawal la daal jëm ci miskin yeeg néew doole yi ndax nee na dajale sarax yi ñu daan joxe yi jaami yàlla di joxe ngir jox ko néew ci doole yi ñu ko daan dajale daawu ko woon joxe du ko jox kenn du dimbali kenn ku fa ñëw di sakku dimbali tam du la jox li ma seetlu ci moom daal da ko doon dajale pour boppam di def chiffre d'affaires ak di jënd ay terrain di jënd ay kër di jënd ay xar ci bëy di sàmmlu ak dajaleeg ay giléem ki ay ay jur moom daal loolu ko noonu ñor waaye coonay jaam ñi coonay askan wi seeni bëgg-bëgg li mu daan taxee daaw lu bari te xamul ni diine dafay dox ci social diine dafay dox ci yërmande ak ndimbalante maa nga xam ne ko mën maa ñëw rek bëgg xam-xam mën naa jàng xam-xam waaye mën na maa bañ a soxla nag euh, jikkoom ba bañ cee jëlee dara nee na noonu laa nekk ak moom. di maslaha ak moom di maslaha ak moom ba yàlla dogal mu faatu kon yàgg naa fa ci sama kanam la faatoo ñu rob ko remplacé ko keneen remplacé nañu labbe bu baax bu yiw ndax moom mii nga xamante ne moom moo dee mu xaf ki ñu ko remplacé ku baax la ku yiw la ku mën a jaamu yàlla ku bëgg Jésus Christ koo xamante ne ni daal ku du àdduna la moom daal par rapport ak asxaaf bokkuñu yi daal labbe bu jub la labbe bu baax la labbe bu lewet la labbe boo xam ne mën na ku yërëme la yërëm na jigéen yor na xale yi alal di daan dugg ci église bi yëpp da daan génnee di ko dimbale baadoola yi di seet nit ñi nu ñu mën a fajoo di seet nit ñi nu ñu mën a dimbalante ak nu ñuy jàppalante waaye daal kii daal ak mbaaxam daal jéggi na dayoo par rapport ak asxaaf nee na fa maa raaytu rajulan ala diinihim xayran minhu wala azama raxban nee na dëgg-dëgg mosumaa gis nit ku ko gën a màgg nit ku gën a tabe nit ku ko gën a bëgg àllaaxira ku ko gën a xemmeem yàlla ak àjjana ak yërmandeem ci xeetu ngëm ci pas-pasam daal mosuma gis ko mel wa zuhdan fi dunya ko dëddu àddina la wa daban ku mën a sax ci jaamu yàlla la wa daban ala mën a sax ci jaamu yàlla nee na wa ahbabtuhu ma sopp ko bëgg ko moom itam affronté ko wala mooma fréquenté ko di am ci moom ak mbaax mu may jox ay leçon morale di ma nettali ay xissaaki waxtaan di ma xemem loo borom bi subhanahu wa nekk na ma ak moom nekk nag ma moom fa lama xadarahu qudra qudra qadruhu qult lahu innahu qad qadaraka min amrillah maa naraa fa bi maa taamurun maa naraa fa bi maa taamuruni na maa moom fa nekk ak góor googu nekk ak góor googu ma doom ma def ko baay maa moom ñu nekk ba mu gën a magee gën a magee ba feebar dugg ko ne ba ma yëg ni feebaram bii gëm naa ni boo ma tuul du ci jóg ci laa dem nag waxtaan ak moom ni ko ah ku dem mag dem waaye ku demul mag dem mën ko dama bëggoon nga dénk ma su yàlla dogalee li ko neex ci yow nga génn àdduna ci kan nga may orienté ci kan laa war a dem ak kan laa war a jàngi wax ma loo may digal wax ma loo may dénk nee na labbe bi ni ko bunayya maa nara ahadun min annaasi ala man illa rajulun fi lmuusil saaxib almuusil nee na labbe sama ndoom moom sama doom man day gisuma ci nit ñi koo xamante ne ñun lii nu nekk ñor na ko ñor gu mu mën a sellale ba jébbal boppam yàlla jox boppam temps yépp yàlla nit ñi daal li ma gis ci ñoom li ëpp ci ñoom àdduna lañ jox seen bopp ab dërëm lañ jox seen bopp dajale ay kër dajale ay château jënd jaay dugalanteeg weccanteeg suul bu sulli bu yooyu daal li ci ëpp ci ñoom loolu la ñu nekk ñoom yàlla kese ñoratu leen xanaa leen su fekkee dee naa su ma fi jógee maa ngi lay yebal ci génn góor gu ñu muusil muusil góor gu baax la saaxibul muusil kooku tam ku yiw la moom daal laa fi tane waaye daal fii ci dëkk bii moom ci siri gisatuma fi ku ku mën a mën a booleel nee na bi góor gi di génne àdduna nee na mayit ma daa dem ci muusil waxtaan ak moom wax ko sama bopp moom it mu comprendre ma lool téye ma fa ma nekk ak moom gis nga moo tax gis nga xam-xam jàng dana ko joxe waaye tukki itam dina joxe xam-xam nee na fa laa nekk fa laa nekk xatta wa wafa ba moom itam yàlla dogal mu génn àdduna ci sama kanam dee ci sama kanam waaye abaa muy génn àdduna Salman nee na euh, man laaj ko ni ko góor bi te nga maa dénkaane ndax ndénkaankat moo ma dugal ci say loxo comme yàlla dogal na lii ba léegi-léegi koo may booleel kan nga may booleel dimbali ma nga am koo ma orienteel nee na saxibul muusul bi ni ko su ma dalla ni ilaa aabidin mu daal di may tegtal beneen borom beneen jaamu yàlla ku baax ku nëbb ngëmam wootewul dara waaye ku sell la ku koy fréquenté mu teg la ci yoon nee na ma ñëw ànd ak moom maag góor googu maag góor googu moom tam xatta xadratul mawt ba dee dikke ko moo ni ko ah, góor gi teg ma dénkaane orienté ma keneen ndax man ab doxandéem laa rek buy buy def jaw la di wër te xam naa ni dëgg yàlla soo ma dimbalee daal dana baax nga nga tegtal ma keneen nee na su ma dallani ilaa umuuriyan ca Iran benn góor gu mag gu nekk ca Iran ca Rome ya nee na mu dégtal ma ah fii ma gis ni daal su fekkee génn àdduna daal ñi ma la mën a booleel ak ki ma la mën a booleel mooy nga génn bor bi yëpp dem nag Iran ca Rome ya nee na foofu de ah dëgg la jaamukat safara ñoo fa waaye nag am na fa ñuy sellal am na ñu fa nekk ci diinay Seydina Isa alayhi salaam ndax booba arab yi diinay Seydina Isa ñi ci ëpp ci la ñu nekkoon ndax seen diggante ak juif yi jubawuñu woon arab akub siif moom li ñuy juba bariwul ndegam daañu ko def li ñuy juba bariwul de nee na ma dem ca moom fa raxaltu fa aqamtu maahu fa aqamtu maa rajulin hunaaka wasnaqtu wastagna wastagnatu baqaraatin wal ganaim nee na ma dem fa foofu nag ca Rome yi yàlla dimbali ma ma dem fa am fa góor gu baax nekk ak moom foofa sax dajal na fa as alal dem naa ba am fa ay ay xar am fa ay nag am naa ay gàtt yu bare bare bare xawoon naa fa woomal tuuti wax dëgg yàlla dëgg-dëgg loolu daloon na ma foofu ca sunu mbokk yooyu le moom it bi ma demee ba nekk ak moom fa lama atatxul wafaat qultu lahu ila man tuusiini fa qaala li ya bunayya ma aarifu ahadun ala misli ma kunna alayhi aamuruka an taatiyahu walakinahu qad a qad azallaka zamaanun nabiyun yubaasu bi diini ibrahima xanifan yuhaajiru bi ardi bi ardin zaatu naxlin bayna xarratayni fastataata an taxlusa ilay nee na bi ma demee ci góor googu ba yàlla dogal góor gi toll ci war a génn àdduna ma def na ma daan defe ki moroomam rek ñëw ci moom ñu ko sama baay dénkaaneel te orienté ma ndax kat ku dem mag dem ku demul mag dem te xaala bii nga tollu soxla na lool nga dénk ma ndax xam nga ne man fii ma nekk doxandéem laa ab jaambur laa fi xaw fi kenn aw fi kenn certes dëkk naa fi yàlla may na ma teraanga waaye li ma taxoon a jóg mooy diine ju baax ju ma mën a ngoy àdduna mii jaaruwaay la ay tool dong la lu ma fi waay mën a am su ma amul yàlla aw ma dara moo tax may xeentu yàlla kon nag dénk ma bu yàlla dogalee li ko neex ci yow mu guddi mbaa mu naaj koo may joxañ ci ku ma war a dem ku ma war a seeti nee na fa xaal lii góor gi ni ko yaa bu naye yow sama doom labbe bi moo ko wax de mu ko man day maa aarifu ahadun aw ahadan man de xaw ma kenn ala misli ma kunna alayhi ku koo xamante ni nekk na ci lu mel ne lii ñu nekk man daal xaw ma fii kenn ci tund wi yëpp ak li nu wër xaw ma fi jaamu yàlla boo xamante nii ci lii nekk te la nekk xaw ko de waaye nag mu naa ah, mu ne ko amuruka dinaa la digal eh, an taatiyahu maanaam gisuma kenn koo xamante ne amuruka dinaa la digal antaati taatiyahu nga war dem ca moom walakinahu waaye nag qad adallaka zamaanun am na jamono boo xam ne nii mi ngi ñëw jege na la soreetul jamono boobu dana am nabiyun yubaasu bi diini ibrahima xanifan déeyaalekatub yàlla ab yonentab yàlla boo xamante nii yàlla dina ko yónni ci diiney sunu maam ibrahim alayhi salaam yonent boobu mi ngi ñëw te xam naa ne soreetul nang ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax mu ne ko yonente boobu yuhaajiru bi ardin zaatu naxlin bayna xarratayni fa in istataata an taxlusa ilayhi fa faal fa in lahu ayatin laa tuxfa fa huwa laa yaakulu sadaqa wa yaakulu lhadiya wa inna bayna katifay xaatamu nubuwa fi saa raaytahu araftahu nee na salmaan nee na abdulaay ibnu abbas radiyallaahu taala mu ni góor gi ni ko am na jamono boo xamante ni soreetu la am na yonent boo xamante ni mooy yonent aaxiru zamaan yàlla dina ko yónnite kooku bu ko yónnee référence am mooy maam Ibrahim alayhi salaam soo ci bëggee xam lu leer nañ ñi ci moom nee na yu haajiru dana dëkke wala dana gàddaay ci dëkk dem dëkk foo xamante ni zaatu naxlin bay na xar na xarratay nii dana dëkk ci dëkk bu bari ay tàndarma fa lay mujj si foofa ngay giseek moom te itam ci ay xeer yoo koŋ te bari waaye dëkk woon bari tàndarma dina gàdday dem foofu mun ko finis taat soo ma ne an taxulu sa ilay yi nga fexe noo yéwénoo ak moom fexe itam noo ko gisee nee na bu boobaa fafaxal na nga ko def fa inna lahu yonente boobu am na aayaatin ay kéemtaan yu rëy yoo xamante ne boo ko gisee laa tux fa dootul nëbb mukk ci yow bokk na ca ay kéemtaanu yonent boobu fa huwa laa yaakulu sadaqa du lekk sadax soo bëggee bis boo demee ba gis ki ma lay wax na nga ko nattu na yëkkatib sarax ni ko am jox leen sarax am am sarax a ngi nii bu boobaa moom du lekk mën na mu jël ko na joxe ko waaye moom du ko lekk moom du lekk sarax mu ni ko yàkkul hadiya dana lekk itam addiya soo ko saraxee du jël waaye boo ne addiyaa ngi nii moom dana jël leneen la ci des ci màndargaam dëgg-dëgg nee na wa inna bayna katifayhi ci diggante ñaari mbaggam yi pàllanqe mbagg yii nee na xaatimu nubuwa lu mel na bala nga fa teñ sa nga fa mooy signature dernier yonenti ay karaw ñoo ko wër yu rafet yu nooy neexul a gis bu la ko wanul mbaa nga fekk simikuul neexul a gis mu ne waaye nag fi zaara ay taxu boo ko ne tegg bët nee na arafahu di nga ko xamme bu baax a baax a baax mooy kooku demal nee na salmaan nee na bi ma góor gi waxee lii bi góor génne àdduna sama bëgg-bëgg yépp moo doon fexe ba xam dëkk boobu fu mu nekk ak nu may def ba dem ca ak nu may fay yóbboo sama bopp jaaxal na ma góor gi junj na ma waaye xaw ma fan la xaw ma kañ la xaw ma nan la waaye sama yitte yépp mooy fexe xam dëkk bii bari ay ay tàndarma naat loolu nekk ci ay xeer yu kawe kawe kawe kawe ak bii ma wax màndargaam bëgg naa ko gis lool ñene zaatu yawmin marra bii rakbun fa saaltuhum an bilaadihim fa alimtu annahum min jaziratul arab nee na benn bis rek genn gawar daal di may romb gawar goo xamante ne ñu ngi yor ay giléem saaw gu gudd nee ma nuyante ñoom laaj leen leen waaw yéen fan ngeen bàyyi ko ñu may tegtal tegtal bët ba xaw wax màndarga wu nuru foofu mën leen yéen dey daa mel na yéen laa doon yéen seet fa qult lahum baqaraati haasi wa ganami ala an taxmiluuni maakum ila ardikum fa qaalu naam nee na man leen man leen laa bëggoon ma jox sama ma ma jox leen sama nag yi ak sama gàtt yi jaay leen ko def ko xaalis ndax man damay dem ngeen dimbali ma ma fay leen ngeen yóbbu ma ci dëkk bii ngeen di wax ay mbokk yi ñu déglu ñu teg suñu baaram ci fii Salman tollu mu ngi wër ko baax di wër yonent bi alayhi salaatu wasalaam gisagu ko waaye tegtal yi commencé na xeeñtu xam ni Madinatu Munawwara la waaye mi ngi xool ba négocier nag ay nit nañu xool ba xam ñii fu ñuy mujjeeg moom ndax daañu ko yóbbu mbax ndax daañu ko war jël ngeen jëf ñu teg suñu baaram foofu incha ba suba jàmm Pape Ablaye Dieye moo nekk ci technique bi Oustaz Alioune Sall ngi nii toog yal na yàlla gërëm ko te yàlla dolli ko xéewal ak sutura may ko wér ak wérletal ak fekkee zaahiran wa baatinan bàyyi ko sunu kanam dund lu yàgg yàgg yàgg yàgg ndax dund gi am na njëriñ jërëjëf Oustaz ñu ngi lay ziar bu ñu paree nga jox Mbacke Sylla mon ami frère sama cousin ñu bàyyi ko mu tam mu ñëw yaakaar naa ci xamtu bi incha allah ko defee kon Mbacke yëf yaa ngi noot jërë ngeen jëf seen mbokk Oustaz asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu